بدر

Euh, noo ngi am mbégte tey jii di àddoog yéen fii ci rajo xasida online tey di le 10 avril 2020 euh, seen mbokkum taalibe Pap Demba ak sëñ Pap Maxtar Tall euh, ñuy ñëw rek di def benn direct bu ndaw xam naa ni tey jii moom dañoo xaw a sax jël place u Ablaye Diop ndax dafa am ay leeral yu ñu bëgg a indi Euh, comme jamono ji moom daanaka dafa nekk loo xam ni euh, euh, nouvelle yi dafay gaaw lool te it léeg-léeg bu buñ la joxee nouvelle bu xaw a dëng pour nga defaraat ko day metti ñu ne nag visto que confinement bi ñëpp ngi ci kër gi nañu def benn li li live bu gàtt rek waxtaan layante biir ci casa intégration ne bii nga xam ni moo xew ak coppite yi am ci décret bu bees bi nga xam ni moom la président Conte def xam naa rek damay jox sëñ Pape Mokhtar euh, mu dugg nuyo ñu doog a tàmbali ci liggéey bi sëñ Pape bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatulah jërëjëf sëñ Pape eh, ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci sangu-sang yi eh, di ziar ak nuyu suñu mbokk taalibe yi di ziar mbokk auditeurs yi. li nuyu jiital ci nuyoo yi euh, sëñ Muntaxa Bachir di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi lool ànd ak wér xam naa duñu guddal sax nag ndax xam nga comme euh, yàlla dogal na danoo danoo improviser sax nag euh, émission bi ndax bëgg nañu saasu ne rek sunu mbokku taalibe yi kenn du leen jiitu ci information yi ak fexe nunu nu jéem suñu kéem kéem kàttan Euh, jiitu ci ñoom ci information juste et réelle euh, balaa nit di leen consommer loo loo xamante ni duñu xam fu ñuy teg seen tànk di woote fu ne te duñ jot kenn ci jamono bii wa ilaa ñuy wër di risque di génn euh, exposé wu ci contagio bi wa ilaa ñu leen di multe ci strada yi ak yooyu loolu mooy sabab bi nga xamante ni sax dëgg-dëgg Euh, ñu ñu bàyyi woon lépp luñ doon def ne xaaral ñu ñëw waxtaan ak suñu mbokk taalibe yi waxtaan ak mbokki auditeurs yi euh, ngir gindi leen ci décret yi ak yooyu ak coppitiku yi nga xamante ni am na fi euh, ma ma ma may jaajëfal bu baax sëñ Pape ndax dëgg-dëgg idée bi moom yow yaa ko am sax nag wax dëgg yàlla waaye di jaajëfal it suñu technicien Modou Mbaye Thiam Baye Fall ndax bu bu disponible woon amaana xëy na yëf yi du mën a yemb. kon eh, sëñ Pape dama lay delloo rek eh, bu ko defee ñu jublu ci liggéey bi incha allah. waaw jërëjëf jërëjëf sëñ Pape mi ngi ziar bu baax maa ngi ziar sama jëwriñ bala may si càmm eh, di ziar mbokki taalibe yëpp ak auditeurs yi di am mbégte nag saa ne rek di leen xamal ni ñun ñu ngi seen seeni ndongo lañu ñu ngi ci waar wi waaye léeg-léeg dañuy bëgg toujours rek di di bokk ak yéen taxawaay bi. ñu ziar sunu mbokk yi nga xam ni jamono ji ñoom ñoo nekk ci ci liggéey bi saa su ne di jàppale fépp fu communauté bi nekk rek ñu ngi leen di ziar waaye di ziar tam sëriñ Modou Mbaye Thiam Baye Fall moom ci liggéey bu sell bi nga xam ni moom lay def euh, ñu bëggoon rek tey ji ñëw ci waxtaan bu gàtt sëñ sëñ sëñ pap may ñaan mbokk yi nga xam ni ñu ngi bàyyi xel suñu mënee condividere euh, tam euh, direct bi pour nit ñi nga xam ni yéguñu ko ñu mën a ñoom it participer ndax dafay dafay tax euh, liggéey bi gën a am solo waaw képp koo xam ne rek yaa ngi ci biir boo ko mënee conduire rek liggéey bi dafay gën a am solo. Euh, ñu ñëwoon rek tey jii pour waxtaan ci euh, li nga xam ni moo di casa integration ne bi nga xam ni moom la état bi obligé woon société yi nga xam ni daf leen tëjloo par force ñu tuddee ko daanaka émergence Covid 19. Euh, bari na nag mbokk taalibe yoo xam ni xëy na dégg nañu carte case intégration bi mais xamuñu case intégration bi dëgg-dëgg du mu demee mécanisme beeg yooyu euh, ba xëy na sax tey jii man bari na ñaari fan yi ñu ma woo di ma interpellé ci wàllu xaalis bi kan mooy fay ni mu demee yooyu tey jii nag ñu ci laayante biir euh, waxtaan ci ci li nga xam ni mooy convention bi nga xam ni moom la état bi syndicato yi

moom la moom la moom la euh, euh, euh, état bi def le 31 mars ñu ratifié ko ba lépp loo xam ni lu ci war la ci këyit yu ñu war a def tey jii hmm. yor nañ ko ñu bëggoon ci ñu bëggoon ci laay biir sëñ Pape dañoo gis ni case intégration ne normal hmm. bu ko bu ko bu nit signé lu ci ëpp daan na toog ñeent ba juróom benn weer doog a jot xaalis bi bii nag hmm. ministre de laboro Nunzia Catalfo Euh, mhm. def lu lu am solo ak abi organisation syndicale ak euh, parti datoriale yi sëñ Pape mhm. tey ko doon expliquer ci tënk euh, accord boobu lan la waaw jërëjëf sëñ Pape comme ni nga ko waxee rek xam nga le 31 mars boobu ñoom ci lañu xaatim waxtaan boobu ñoom ñu def mais la sabab mooy xam nga bu fekkente ni da ngaa nekk ci benn situation émergence sanitaire boo xamante ni euh, ñii liggéey ñu ci bari sen euh, seen liggéey fay taxaw parce que xeyna na euh, matière première bi du exi wa ila client yi nga xamanteni mom lañu am nek nu Italie te production bi mënta dox euh état bi bi mu defee décret cour Italia bi dafa permettre génne ay mesures yu permettre fabrique yi ñu mën a def recours à cassa integrazione cassa integrazione yi nag dafa bëri ay forme euh, ñun suñu problème mooy suñu mbokk yi ñu ci bari ñu comprendre euh, yan forme cassa integrazione la fabrique bi war a def certes du du du man en tant que euh, travailleur man maay choisir que fabrique bi bii la war a def piuttosto que bële mais ni ngi dépendre aussi ci condition yi ñuy teg azienda bi ak contribution yi nga xamanteni azienda bi mi ngi koy verser pour mën koo permettre pour mu def recours ak cassa intégrationne ak codice ateco bu azienda bi ak ñaata liggéeykat mom la am ba noppi ndax industrie la wala artigiano la wala agricole la donc condition yooyu moom mooy permettre euh, fabrique bi pour comme mu mën a définir ban façon casse intégration ne moom lay dugal léegi nag euh, parti sociale yi faaw acteurs yi nga xamante ni ñoom ñoo ñoo lëkkale parti sociale yi xam nga parti sociale yi ñun dañ koy faral di wax rek ci yemale ko ci organisation syndicale yi mais banque yi tamit euh, ay acteur acteur lañu euh, nu nu nu nu mu tuddati patron yi ay acteur lañu Eh, liggéeykat yi ànd ak eh, eh, syndicat yi ñoom ay acteurs lañu ñoo ñi ba ñu toogee waxtaan xool ni gis ni dëgg-dëgg bu fekkente ni da nga def recours casse intégration su nekkul émergence normalement balaa ngay jot sa xaalis 4 mois 5 mois te dëgg-dëgg jamono bii ñu nekk ndagam gouvernement bi ma ngay xalaat ni jafe-jafe am na tëj naa lu bari te nit ñi danañu soxla xaalis parce que danañu toog ci kër yi danañu consommer danañu dund donc obligatoirement dañu soxla xaalis euh, ci seeni ci seen gafaka ngir mën a euh, am lu nu mën a jënd pour dund ko parce que comme liggéey ba taxaw na indépendamment de de leur volonté c'est très normal pour ñu xool voies moyen ak ay solution yoo xamante ni fa lañ mën a jëlijee xaalis bi waaye ku wax koppar wax banque <laughs> raison pour laquelle il a fallu que nag euh, ministre bi Nunzia euh, convolvere banque yi man maa ngi koy soog a dégg lu ni sax nag dëgg-dëgg bi ma duggee Italie ba léegi maa ngi soog a dégg ricorso cassa integrazione boo xamante ni dañu convolvere banque yi alors euh, ñi nga xamante ni dañuy dugal cassa integrazione ordinaria ad esempio Cigo am na ci société yu bari yoo xamante ni duñu am sax problème ANSI ñii di euh, organisation syndicale yi yu ci bari ñun ñooy demander sax anticipation bi. Mhm. Euh, ci ci société yi. donc ñooñu ñu ci bari duñu am problème. parce que dita bi am na benn euh, capienza boo xamante ni dina leen mën a couvrir peut-être pas neuf si nove yi parce que dita bi sicuramente dafay def intégration euh, per un mese et mezzo. Mm, un mois et demi après mu reprendre activité normalement wala mu réduire activité bi. Mm-hmm. mais problème deug deug deug bi moy suñu mbokk yi nga xamanteni ni ñoo ngi liggéey ci société artisanale yi. Mm-hmm. waaw ñooñu nga xamanteni ni diita bi du leen anticiper. de mm-hmm. accord yoyu dañ koy def au niveau de la région région bi euh, après jëflante ak momit it ak euh, ak état bi ba noppi euh, ay fonds lañu. moy fondo ente yi. Mhm. Eh, defe naa Toscana yéen yéen e, e, e, Ebret Ebret. Ebret waaw Ebret la ñu am. waaw Ebret ngeen am. Eh, mais nag mais nag damaa bëgg tey jii ñu ñu utiliser ay kaddu yu yu yu yu néew yu maanaam yu yu pauvre yoo xam ni. Eh, waaw nit ko comprendre dinañ ko comprendre. maanaam artisanato bi. artisanal mhm. bi ak ak industria mooy lan. ñaar ñu mën a xam ci kaddu yu gàtt rek nga xam ni gars yi dinañ ko mën a. ci ci ci ci gàttal bu gën a tënku maanaam artigianato mënul dépasser quinze dipendenti mm-hmm. mënu koo dépasser mm-hmm. Mm-hmm. maximum ay quatorze dipendenti lay yore <coughs> euh, industria di nga gis société boo xamante ni dafay am quatorze dipendenti maa di appliquer contrat industrie euh, loolu am na man am naa société boo xamante ni dafay quatorze dipendenti la ñu yore mais dañuy jël benn Euh, somministrato mooy ki muy jël ci agence waaye du nekk dipendente directam mhm. waaw mais parfois da nga leen di sonal laaj leen ñaata heure lay liggéey ak yooyu ndax heure yi muy liggéey moo ëpp sax li heure yi kee di liggéey pour sonal leen pour maintenir yow sa activité syndicale pour nga am agibilité syndicale bi ci biir société bi mhm. mais euh, li leen loolu moo leen différencier ki nga xamante ni industrie la contrat am booy xool daa moo gën a riche contra wu ki nga xamante ni artisan la euh, artigianato ñoom dañu am seen contrat contrat national comme ni nga xamante ni industrie noonu la amee contrat national am mm-hmm. artigiano am na fond euh, fondo integrativo comme ni nga xamante ni industrie noonu la amee fondo integrativo mm-hmm. li euh, ki nekk industrie di am pour doomam maanaam buy changé okial yi ay lunettes wala muy defar bëñam loolu la ka nekk artigiano amit fondo boo xamante ni. Mhm. su amee doomam wala leneen lu muy kii daf koy am donc. Mm-hmm. li leen moom la ñuy tuddee voilà. Mm-hmm. li leen di utale rek mooy différence salaire yi mooy tabella minimum syndicale euh, bi. Mm-hmm. loolu moo leen di xaw a différencier. mais euh, pour dellu tuuti rek ci euh, cassa integrazione guadagni bi ak in deroga bi. Euh, maanaam ñoom comme région bi daf leen moo leen war a fay région bi bu ko anticiper balaa mu leen di fay tamit dafay yàgg accord bi bi mu ñëwee am na région yu bari yoo xamante ni dañu xawoon am problème ak yenn banques yi parce que ñàkkul am na ay accords yoo xamante ni trouvé wuñu ko woon mm-hmm. alors euh, man xam naa liste banques yi sax ma ma nga fee mais dinaa ko génnee après Mm-hmm, euh, mm-hmm. du ñàkk sax yow yow yor nga liste bi parce que xam euh, mail bi ma jot moom nga jot yow xam naa ni euh, léegi nag tey jii rek parti yi ñu ngi doon defaat waxtaan tey jii ba nga xamante ni boot sa bi nga xamante ni moom la ñu bëgg a wu pour waxtaan ci pour que liggéeykat yooyu ñu mën leen a anticiper xaalis bi en attendant dafa amone ay situation yu particulière yu xawa ndaw ndawaan yo xamni mom lañ doon euh, lijeenti au cas où datori di laboro bi lamu wara fay fayuko, ko ak datori di laboro yi nga nek guñu en règle parce que ça aussi c'est important parce que euh, au cas intégration bi sëñ pap amna ci ay société yo xamante ni xam nga FSBA muy ebret wala muy eber am mhm. quota bo xamanteni dang koy fayal kat bi par weer. Mhm. ñu ci bari état bi daf leen ko yombalal daf leen ni daf leen casse intégration bi la ngeen yorel fondo bi def leen ko ñu leen koy ratel ngeen di ko fay ndank ndank mhm. ba ngeen koy matal. mais lolu du leen yakal pour que ngeen demander. légui nak yenn banques yi dañu xawoon perplexe foofu. parti sociale yi aussi laaj au cas où société bi. versewul fayul euh, responsabilité sociale d'impresa bi maanaam insolido bi kan moo ko ci yore mais suma juumul d'après li ma am sànq ci téléphone nee nañ ma banque bi après bu fekkente ni liggéeykat bi jotul xaalis banque bi mën na avancer liggéeykat bi mais banque bi moom mooy topp société bi. société bi. waaw loolu def naa ko fii donc cela veut dire que loolu.

Euh, tek nañ ko. Mhm. pour nit ñi mën a mën ko remplir. Mhm. Euh, na mën a bu ñu ko rempliré dem ci banque bi. Euh, par il paraît que mhm. am na ay banque yoo xamante ni dañ lay imposer nga ubbi compte. mais accord bi li mu wax afin man accord bi ma yor bi nga xam ni pour Emilia Romagna la man du du du regarder territoire national bi parce que région wu Toscana du région wu Emilia Romagna région wu Marche du région wu Toscana région mhm. bu nekk ak na ngay gérer say accord mhm. mais ñun accord bi ñu yor fii euh, te gëm naa ni sax xëy na bu Toscana tamit noonu lay mel mhm. euh, dañu demandé à ce que laboratoire bi liñ ko liñ koy fay buñ ci laal benn buñ ci dugal intérêt buñ ci laal buñ ci cofit benn coût boo xamante ni dañ ko naan lii pour mantenimento wu banque bi la waaw buñ ko ci conditionné daal Euh, nañ ko ko yombalal ba nga xamante ni aussi bu fekkente ni dafa war a pour éviter muy génn wala muy dem euh, ca banque ba su fekkee moom volontairement moom moo euh, décider pour ubbi compte ci banque boobu pour que ñoom danañ ko jox yónnee carte boo xamante ni dana mën a di di dem di retirer tranquillement sans pour autant muy ñëw ci sportello yi wala muy exposé wu mhm. ci émergence sanitaire bi dëgg la waaw xam nga Pape Makhtar defe naa ni euh, tey jii bu ñu xoolee euh, émergence bi defe naa ni ñi ngi ko ab ci fii ñaari weer parce que boo xoolee am nañ yaakaar ni liggéey bi nii mu tàmbalee bu ko continuer ci kàttanu suñu borom euh, màjj normalement émergence bi dina wàcc waaye lépp nag dañ koy wax bu neexee suñu borom moom mi nga xam ni moo moo taxawloo ñëpp tey Euh, euh, émergence bi biñ koy def ñoom dañoo programmer nii par exemple defe naa ni avril ak mars la ñuy couvrir. Mhm. donc couverture bi foofu la nekk. tey jii su fekkente ni ñaari ak ñaari weer yooyu lañu la war a fay ñoom déjà defe naa ni négociation yi foofu la demee. Euh, mhm. boo xoolee banque yi moom li tax toujours de duñ la wax ni la duñ la ubbil compte mais toujours proposé yi ñu lay def daanaka dañ lay wax compte boo xam ni. Eh, spese gratis lay doon eh, eh, daanaka boo xoolee daanaka dañ la koy obligé ba nga xam ni. yow hmm. boo boo ko ubbee parce que ñoom si seen ci seen i si seen i mbir yow du la ko wax xam nga borom banque yi daanaka ñoom ñu ubbi ko mu leen di gën moo tax toujours ñoom daanaka ci boor boobu la ñuy la ñuy tàmbali. fii nag am na am na banque yoo xam ni officiellement commencé nañ ko def dinaa ubbi léegi wan la elenco bi. mais banque bi fi gën a ràññee nga xam ni maanaam moo gën a neex accès ci dëkk yi waxuma ko pour publicité mais nag euh, par pure opportunité la moo di Unicredit banque Unicredit euh, nekk na banque bi nga xam ni euh, ak ak participer na ci li nga xam ni moo di accord bi bi bi bi banque bi banque yi def ak kii donc ñoom déjà boo fa demee bu dee sénégalais yi déjà am nañ fa compte ku fa am compte moom dafay doon lu noppale te ji boo amee compte boo amee compte yàlla boo am sax e-banking. boo amee hmm. e-banking sa kër. Hmm. man boo ma woowee wala nga woo ku mel ni Pape Makhtar wala sax foo mën ci nekk boo jotee sa syndicaliste modulo bi mën na la ko jox mooy communication bi bi nga xam ni. moom la hmm. convention nay def parce que boobu module boobu ngay remplir. ñu yónnee la euh, lii nga xam ni moo di euh, euh, protocole d'invio bi nga xam ni moom la dita bi consulente bi envoyé. pour riquer sa casa intérêt eh, eh, eh, casa kii ciigo bi loolu ngay boole sa busta paga ak it say document d'identité nga xam ni gis naa ni nag liñ ci bind moom xaw na xaw na xaw na xaw na xaw na bari parce que gis naa allégato allégato dafa bari ay dama xamul nag pap allégato mm-hmm. allégato yi ndax yow yor nga leen parce que allégato yi dafa commencé A ci Ah, euh, eh, eh. ah voilà donc man dama xamul ndax yépp lañu wara war wala parce que bu fekkente ni nit ki la wara euh si si dafa am dafa parce que dañ ci def données presque sax mom la euh, dañ def euh, numéro bi euh CD yo non non non dañ ci def dipendente de l'agenda turu agenda bi lañ ci def euh, ce document vraiment neex naa defar euh, hmm. xëy na nag ku ko xamul parce que euh, liñ ci bind moom jafewul fi ne ni boo boo munee boo munee lire rek hmm. wala wala wala wala li ci gën mooy dégganteeg par exemple syndicaliste de de référence bi nga xam ni moom moo nekk seen catégorie boo leen amee lu mel ni xeetu RSE wu yu nekk ci détail bu dee détail mag la foofu moom day yomb mais bu dee xeetu artisanat bi foofu dama bëgg ñu dellu si waat fa parce que ñun fii dañu am problème ebret bi euh, du anticiper xaalis bi fii loolu lañ ma wax ba tey ci suba xam nga ebret ñoom deux mois trois mois lañ daan def pour fay mm-hmm. euh, li nga xam ni moo di euh, FSBA bi mais fii mm-hmm. ci interroga bi rek cig bi rek la ñuy joxe fii maanaam casse d'intégration bi rek la ñuy fay nga xam ni mën nga dem ci banque yi mais bu dee FSBA bi moom doo ko mën a def lan moo tax ñaari différence yooyu am Pape waaw xam nga euh, peut-être différence bi mooy région bi nekk ci diggante bi parce que euh, Casa il déroga xam nga région bi il faut ñu xaar autorisation bi mm-hmm. dafay am autorisation parce que euh, am na fu ñuy waxee ni l'anticipazione spetta alle imprese, all'impresa che anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione del trattamento mhm. di integrazione salariale per l'emergenza Covid-19 uh-huh. Mhm. abbia sospeso dal lavoro eccetera e abbia fatto domanda di pagamento diretto da parte al, dal fondo dell'ente FSPAB il trattamento di integrazione salariale per assegno ordinario ai sensi della, degli articoli 19 e 22 mhm. decreto legge 18 2020 e successivi interventi normativi per tempo vigenti e le relative disposizioni di qui ai accordi regionali per conto del lavoratore o della, della, della lavoratrice. Mm. Donc, disposizione nga disposition che bu fekkente ni integrazione ordinaria Mm-hmm. yow disposition bi du fa nekk amu fa mm-hmm. parce que bu boobaa azienda bi la ak IMS directement région bi du nekk ci diggante bi mm-hmm. donc euh, moo tax artijaanu yi aussi euh, bu ñun bu ñuy def suñu activité syndicale lu ci bari dañ leen di ñaax di leen solliciter pour wax leen ne leen quota bi nga xamante ni liggéeykat bi mi ngi koy fay dee leen ko fay pour euh, éventuelle émergence wa ila laboratoire bi meuna dita bi meuna lak wa mais li xam nga li li ken musko won sor tay gi lu mel ni musu sorale li te te li li meun nañ ko dugal ci catastrophe naturelle yi nga xamni mo melni lu melni terremoto. wala dita bi lak wala xëy ñu am émergence par exemple mal tempo. nga jiki jikki euh lu melni ay ay tempête am yóbbu dita bi yep yoyu dafa nek ay xeetu.

déjà muy gën a komodo mm-hmm. këram lay toog moom jarul sax muy déplacé wu fenn këram lay toog def li muy def tranquillement mm-hmm. telematicamente du am benn problème mm-hmm. al fine di limitare quanto più possibile l'accesso fisico presso le filiali parce que tam génn bi du obligation boo xam ni mën nga ko justifier bokkul ci autocertification yi ñuy justifier attention waaw ah. waaw nañ ko ci boole ndax bokkul ci ah, waaw waaw loolu c'est important. yi gars yi wax ni ci la bokk man gis naa démb ku dem ba IMS woo ma ni ma de IMS la nekk nii dafa tëj ma ne ko sëñ bi nooy def IMS mu ne ma sama PIN laay dem jëli PIN personnel. PIN kenn du ko joxe IMS. mais xoolal loolu rek sëñ bi. PIN kenn du ko joxe IMS. Mhm. Euh, xam nga euh, sëñ Pape xam nga. Mhm. ñun depuis kañ ñoo ngi wax. waaw un mois ëpp na un mois de fi ne nii. ëpp na weer de te yàlla seede na ni bu ñu nekkee ci rajo bi sax defatuñu euh, une heure trente. Mm-hmm. deux heures kenn li ñuy wax deux heures wala mu weesu deux heures de temps te. Mm. amul benn émission bu ñuy wax te bamtuwaatuñu euh, yeesalaatuñu euh, nit ñi nañu toog seen kër. Mm-hmm. parce que gis wax nañ ko ba tàyyi. dafa am benn article bu nekk ci biir euh, autorisation boobu autodichiarazione boobu loolu yow yaa yow yaa déclaré que man damay dem par exigenza lavorativa man damay traversé commune jóge ci benn dem ci beneen commune ndax exigence bii moom moo tax mhm. ndax lavorativa la man damay am exigence su sal salute il faut nga démontrer ko man damay dem pour def spesa mais gisuñu ci fu nu bind que ni man damay dem pour ims nangam ak nangam mhm. bokku ci de bokku ci donc euh, on a de sérieux problèmes il y a sénégalais yi nga xamanteni ma ngi dégg kérok ibrahima ñaan diko wax ni ma né à mhm. euh fekk ma don ko némé ko pour xol rek euh, fofu naka lañu doxé ak yoyu ci la may wax né ma y a beaucoup de sénégalais yo xamanteni dañ leena a multa yaatu na isal yépp la donc gars ñi devons attention parce que dénonce euh, dénonce la de lolu dénoncez dénonce la xamna ni Babacar bu bu doon mi ngi dana dana ci mëna wax lu bari ndax la la avocat la mën faram euh code bobu article devons faire des choses, ñun ko wax parce que ñun mën limité wu rek pour wax ni lolu dénonce la te da lay ci sa casier judiciaire te mhm, mhm. casier judiciaire bu taqee bis boo demee di dugal séjour tempo indéterminato wala ngay dem di dugal euh, cittadinanza mën nañ la indil ay co ay ñol-ñol te nit ñaan yàlla nag nekk ci réew mi fii pendant vingt ans di am ay séjour yoo xamante ni un an lay durer ngay dem di renouveler ji ci période bii ñu nekk nii nga xamante ni pour boo dugalee séjour bala moo génn sept mois jot wala huit mois kon il faut que gars yi tamit di am tuuti euh, raison garder te toog ci biir kër yi reyul kenn. Mm-hmm. ñu ngi sant yàlla nag ba mu nga xamante ni du ay bomb. wax nañ ko fi ba tàyyi du ay bomb du lenn lu nu gisul la xamuñu fu muy jóge xamuñu fu muy takk nan toog ci kër yi bañ koo dugal ci biir njaboot gi. Mm-hmm. waaw gars yi ni ñu jàpp ci loolu. dinaa cas intégration na yii euh, ku ci am loo xamante ni jaaxal na la. même ñun ñii nga xamante ni ñoo ngi liggéey ci syndicat yi sax dafay am ay bagages yoo xamante ni daf ñu ciy jaaxal. Mhm. dañuy obligé téléphoner suñuy références yi nekk au niveau régional wala ñi nekk au niveau national pour que ñu gindi ñu ci parce que comme situation émergence la dafay am benn gestion émergence. Mhm. tout extraordinaire boo xamante ni faawu gouvernement bi di ko gaawal parce que nit ñi mënuñu xaar. Mhm, ci biir liggéey boobu gouvernement bi dinay am ay ndëgg sërëx yoo xamante ni boo seetloo chaque fois bu génnee dara faw syndicat yi ci yàlla ci lu wil àndandoo ñoom it dem toogaat ak ñoom waxtaanaat ak ñoom ba ñu dindi yenn ndëgg sërëx yi. Mm-hmm. alors raison pour laquelle ndagam ñun ñi nga xamante ni ci la xëy di ci gont di ci fanaan. Mm-hmm. ñooy am problème parfois pour comprendre yenn affaire yi. Mm-hmm. masama nag ki nga xamante ñun luñ ko waxul xëy na du ko xam ci liggéey bi kon bu ñu amee lu leen jaaxal sa patron yi bu la ciy wax loo xamante ni dalut sab xel wax dëgg yàlla wooteel ci parce que tey jii yàlla dimbali nañu ñun communauté sénégalaise bi ba foo dem ci Italie di nga fa fekk ab Pape Demba wala ab Pape Tall mu nekk fa di jàppale doomu aadama yi nga jël sa téléphone nga woo ko laaj ko xalaatam Mm-hmm. boo ko woowee jotoo ko it bul ni waa ji ndax naqaree jot ndax jamono bii moom <laughs> yaakaar naa ni euh, ut ut ut téléphone u trente très diis yi sax moom moom mooy moom mooy tànn ci ñun. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw ndax euh, métti na buñ ku la waxul méttiwul rek c'est parce que nekkut ci liggéey bi boo ko woowee jotoo ko it bàyyil ko message bu paree dana moom amaana ci yow sa situation. amaana ñun si syndicalistes yi parfois ci situation wu nit dañ ci jàng ba génne ci leneen loo xamante ne fooguñu ko woon. Mm-hmm. donc loolu il faut que Modou Modou yi aussi. sa mbokku taalibe yi nañu nañu nañu euh, nañuy jege gaa yi nañuy jege gaa yi parce que valeur ajoutée la naar yi. Mm-hmm. am na ay jamono yoo xamante ni presque ñoom ñoo nekkoon ci syndicat yi di ci liggéey léegi yàlla dem na ba dogal ba nga xamante ni ñun sénégalais daanaka ñoo ci ëpp. Mm-hmm. Mhm. kon nañu colliere moment boobu su rawatina nag moment yii ñu nekk nii ñu war cee jóge jàng ci loo xamante ni gis taxawaay bi nga xamante ni Pape Demba ma ngi koy def Toscana googu waa toskaana war a mën a xam ni ah am nañu doom joo xam ni vraiment lii muy def nii comme lii waa Brescia def ci Ibrahima jël ko jël lañu xam ak la mën yëpp xam ni kii lii mooy liggéeyam ñu jël lépp teg ci loxoom waaw loolu day wane ni wanewul ni ñeneen ñi xamuñu ñeneen ñi mënuñu mais yàlla moo dogal ni sëñ Pape lii mooy liggéeyam parce que day suivre artisanatu yi laboratoire artisanatu yi nga xam ne nii genn wàll yëpp conserverie yi ñu ci bari dafa bëri artisanatu mhm, mhm. kon euh, bu ñuy wax ay cassa integrazione bu ñuy nekk di wax daan ay yenn contrate et cetera ci ci ci domaine boobu mu nekk ci zone boo xamante ni loolu loolu mooy euh, euh, maanaam euh, liggéey bi fa gën a prévalente mm-hmm. je pense que nga woo ko laaj ko moo gën ngay woo tubaab wala ngay dox di dem IMS wala ngay dem di dem di laaj koo xamante ni tontu ba mu lay tontu moom moo lay wërloo ci biir dëkk bi te doo xam fooy teg sa tànk nanu jox rek ki nga xamante ni lii la man nan ko ko jox loolu moom moo ñuy avancé loo ñu ñu ñu àndandoo ñun ñëpp dëgg yàlla <laughs> li li li gars yi di wax Sénégal daan coronavirus. Mhm. waaye di joxe information juste et réelle. Mhm. nit ñi mën di consommer lu baax pour xam fu ñuy teg seen tànk c'est important seen Pape. dëgg la dëgg la kon Pape bu ñu dellu siwaatee rek ci li nga xam ni tey jii moo tax ñu ñu ñu indi waxtaan bi mu di euh, weer wii ñu nekk ñi nga xam ni bëgg nañoo fayeku parce que tam dafa am ñaari différence am na ñoo xam ni weer wi am na luñ ci liggéey. avant ñu leen di yóbbu kaasa mhm. donc ñooñu euh, dañuy laaj seen dita bu fekkee dita bi léeg-léeg am dita yoo vraiment mhm. am souplesse boo xam dañuy sax mm, anticiper yi nga xam politique. donc bu fekkee dita bi daf koy anticiper xayrun euh, sa booster dina ñëw euh, normal waaye bu fekkee dita bi du anticiper da ngay woo sa banque njëkk loolu la ñuy xelal képp koo

par téléphone leg leg dañ lay defaral ba nga xamni signature bi moy dess mën nañ la ko yónnee par mail nga signer euh envoyer leen document yi soxla kon nañu xamni euh cassa intégration la bi noonu la nara teudé dañ ko nara fay in anticipo ci wèr bi waye nak dafa am ci ay phase yoy jaar tay ji bu féké sa banque nekufa la da ngay tok bo xolé elenco banque yi man dina ko publier sama page facebook xamna pap moxtar dina ko publier ndax banque yi dañu bari waye amna ay banque yu mak yu ci bok yo xamni danaka dekk bo dem di nga len fa fek su boba nga jël rendez-vous euh dem ci banque bobu yobbu yobale say document lu melni par exemple euh euh jël jël defar yépp manam module yi nga xamni da ngay dem ci banque bi da ngay dem rek yobbu euh, document yi bo jëlé rendez-vous parce que banque yi légui duñu def lenn lo xamni duñ ko def sur rendez-vous su boba dina dina mëna dina mëna a ba nga xamni euh fi ak ay fan dinañ la mëna dinañ la mëna jox parce que bu fekkente ni lepp yemb na normalement ñom primo tranche bi nga xamni ni lañuy avance def na mi ngi tollu ci mille quatre cent euros waaw bu dee bu dee bu dee di di di di di euros yi di di avance en attendant IMSI di di di di di di di di di li nga di di di di

991 554 pratiques 600 euros congé de parentale nous, 201 316 mooy congé de euh, Covid bonus bonus babysitter ngi 43 608 pratiques. Tigobi, bi mm. mi 198 pratiques Ouais, nous nous 198 000 pratiques Euh, ñi bénéficiaires yi ñi ngi nekk ci deux millions huit cent quatre vingt seize mille bénéficiaires assegno ordinario yi ñi ngi def azienda yi quoi xam nga azienda lay doon mais nombre de bénéficiaires yi par exemple assegno ordinario bi cento cento mila ottocento aziende mooy domande yi euh, per un milione sei ottocento due duemila euh, bénéficiario loolu état hmm. italien bi ci Cura Italia xaalis boobu daf ko daf ko daf ko voté ba jël ko ba def ko d'aparté léegi nag ci distribution bi ni ñuy def ba tasaare xaalis bi ñu war a jot seen xaalis jot ko loolu euh, IMS moo koy moo koy moo koy moo moo moo liggéey boobu waaye it lu ci mënti am boo deful demande bi demande bi jaar yoon parce que man fi gis naa asiende yu bari tey jii rek ci suba ñaari asiende chinoise yu nekk euh, Prato jot naa leen fa sénégalais di liggéey parce que ñoom comme du ñu nekk en règle ñu ci bari dañu ragal dugal. ba mhm. tey jii ma lay wax. am na ñaari anciens de chinois yoo xam ni dugal gu ñu mhm. demande. Mhm. il faut les dénoncer nag. waaw non menacé naa leen ba ñu jox ma ba ñu jox ma seen euh, seen seen seen seen numéro téléphone con consulente may wax ak consulente ñu ne ma non affaire dafa compliqué ma ne ko dara compliqué wul. Euh, dugal leen ba pare bu leen daan jaaree laboratoire yi boo leen paree. la ngeen war a siq ak état bi ngeen siq ko waaye nag fii liggéeykat yi ngeen war a tutelaare kon képp kuy kuy kuy kuy liggéeykat si yoon bu sa agenda defee ci covid bi war na la yónnee benn sms boo xam ni dana la wax notificat bi ak protocole bi man fii loolu lay wax gars yi am na ñu ko commencé yor ba di ma ko yónnee bu ñu yoree protocole boobu à partir de protocole boobu nag dinañu mën a def lépp li ci des Pape Makhtar xam naa war nañoo wax tam lii nga xam ni moo di euh, normative yu bees yi ndax IMSU dafa tëj léegi service yu bari daf ko daf ko yombal lu mel ni disoccupation ne yeeg demande yu bari daanaka boo xoolee même ñun sax ci patronato yi léegi këyit yi dootuñu ko laaj parce que par message ak par whatsapp la ñuy defee demande yi kon tey jii war nañu mën a xelal tam sénégalais yi pap façon ngin boo xam ni war nañu mën a wàcc seen i këyit ndax sénégalais yi boo leen di laaj këyit rek dañuy sonn

gouvernement bi defu ko sous forme euh, euh, différée bi le ñoom yokk nañu seen i euh, pratique yi nga xamante ni nit ki bu liggéeyee ba pare war a dugal sostegno al reddito maanaam wax gouvernement bi liggéeyuma waaye dama bëgg nga soutenir ma en attendant lu mel ni disoccupazione gouvernement bi yokkaat na ko manam yow mi nga xamanteni ni pap jeexal nga liggéey euh, demb jarut yàkkamti pour ngay genn nan yaangi dem ci patronat ba wala ya ngay dem ci syndicat ba pour dem dougal di occupation jarul yàkkamti it di da ngay jël sa computer wala sa téléphone nan yang koy dougalal sa bop ci IMS parce que boko defé di nga méré fula deful dara parce que im ce moment bi ni même deux demande de désoccupation ni duñu ko sax ak kol yéré hmm duñu ko sax yéré parce que bokul ci pratique yu urgente yi hmm hmm ko laal parce que may nañ la bo jéxalé yow tay ji may nañ la 128 jours 128 jours boko diviser par 30 c'est bi jox la 4 mois Puis fi 4 mois may nañ la nga duggal ko te it doo ci perte benn franc un franc doo ko dugal déjà demande de disoccupazione boo ko dugalee premier pagamento bi entro sessanta giorni la entro mhm. sessanta giorni lañ lay commencé fay donc mhm. may nañ la temps boobu pour nga dugal ko te it auto ba danañ ci dellu siwaat ndax auto certification yi nga xamante ni moom lañ lay jox pour wane ni yow da ngay génn fii nga jëm kenn bindu ci ni damay dem ci patrona bi mhm. maanaam lépp lu ñuy def rek faaw ñu génn di yor auto certification bi te it comme kenn bind ko ci wax dëgg yàlla kenn tënkuñu kenn fakkataluñu pour nu mën a daw naan na ña ngay dem ca patronat ba eh, ndax gouvernement bi jox nañu possibilité boo xamante ni yokk na bis yi nga xamante ni may pour que man ma toog sama kër dallu ba lii ba jàmm ñëw ba nga xamante ni dara amatul ci dëkk bi mobilité bi dellu na ma waroon delloo ma mën dem dugal sama disoccupazione normal mm-hmm. ñii dugal disoccupazione agricole te mu jeexoon le 31 mi passé ci temps normal gouvernement bi yokk na ko ba le 1er juin. Mhm. kon kenn amul difficulté wala coono naan damay dugal ndax dafay jeex wala nangam nangam ba ci sama mbokk yi nga am nga Sénégal. waaw parce que tam bu ñu fàtte ni ñàkkul am na euh, mbokki taalibe yoo xam ni xëy na danoo jeexal contrat rek ne xaaral ma dem Sénégal def fa weer bu ma dellu see soog a dugal disoccupazione mhm. wa mhm. ilaa xaaral ma dem Sénégal balaa 31 mars ma dellu siwaat dugal sama disoccupazione agricole mhm. ñoom it amuñu benn premura pour dugal ko wa mhm. ilaa boo amee premura pour dugal ko xëy na nga mën dem ci patronat ya nekk Sénégal ñu dugalal la ko mais am naa yaakaar sax ni patronat ya nekk Sénégal ñoom it jot nañu indication que ni bu ñu recevoir kenn ñëpp a tëj waaw ñëpp ay tëj bu ñu recevoir kenn kon donc ordinaire administration ak urgence rek la ñuy def mi ngi noonu kon yow pour noppal sa bopp toogal ndax yaa ngi ci tempo bi ñëpp ñaan nañu yàlla euh, <laughs> balaa fin du mois bi yëf yi am benn wàññeeku bu mu wàññeeku boo xamante ni dinañu mën a am temps def suñu mobilité delluwaat dem dugal li ñuy dugal mais euh, sëñ Pape dama man yor naa fii elenko ay banque yoo xamante ni bokk nañ ci protocole bi bisimilah waaw euh, dinañ def publicité gratis rek waaye. moo mais mais c'est c'est c'est c'est vital mënul ñàkk xam nga loo xam ni njëriñ la moom du publicité. su paree rek ñu mu yónni ñu facture bi. waaw bisimilah. waaw Banca Popolare Emilia Romagna. Mm-hmm. Euh, Banque di Piacenza. Unicredit. Mm-hmm. Federazione Banca Credit Cooperativo. Mm-hmm. Cassa di risparmio di Ravenna. e Banca di Imola gruppo bancario eh, ICREA, mm-hmm. Cassa di risparmio di 100, Intesa San Paolo, San Felice 1893, Banca Popolare Credit Agricole Italia, Banca Cambiano mm-hmm. 1884 SPA, Monte dei Pass di Siena ak MPS. Mm-hmm. Mm-hmm. Wow. waaw yooyu yooyu daanaka sax mën nañ ñi ñooy mm-hmm. banques yi nga xam ni mën naa ni foo dem ci dëkk bu mag di nga leen fa dem ndax tey jii boo nee Monte dei Paschi UniCredit Intesa hmm. euh, ak seen banque yi nekk foofu Emilia zone boobu daanaka banque yooyu crédit agricole euh, waaw crédit agricole euh, bari na bari na bari na sénégalais yoo xam ni foofu lañu ñu am compte liñ ciy dolli daal moo di hmm. ñu fàttali aussi nit ñi ni leen hmm. yëf yi yokkaat nañ ko ba le mais mai waaye dañ ci tegaat yeneeni chart képp hmm. kuy génn léegi euh, toléré tu nga génn sans masque euh, masque bi dafa nekk loo xam ni c'est obligatoire léegi président région yépp def nañ ko mu nekk ay décret maanaam ordonnance yu ñu signé loolu nag ni ñuy jëlee molto ci euh, ci ci ci ci génn te amuloo amuloo amuloo maanaam autorisation maanaam lay bu bu bu mat noonu la tamit masque bi doone léegi obligation parce que nag comme masque bi léegi daanaka dañ ñu koy jox ñun zone bii ñu nekk dëkk yëpp dañu la koy distribuer fekk la sa buntu kër sone jox la ko. beneen bi aussi di li nga xam ni moo di contribution boo yi spese yi nga xam ni ñu ngi koy dugal commune yëpp daanaka commencé nañ ko online nga koy defee dem na sax ba bari na commune yoo xam ni dugal nañ ci léegi jàppale ci wàllu afito ñun suñu commune bi commencé nañ ko boni euh, maanaam bonus boo xam ni sostegno per l'affitto nga xam ni ñetti weer yi dinañ la ci jàppale. mais nak duñ la fayal afito ñu bari sénégalais yu bari dañ ma doon woo ni ma euh, pour affaire afito bi parce que ñoom xam nga décret bi euh, euh, actuation bi génnagul bi ñu déggee Cour Italia ñu ne dootoo fay mutuo dootoo fay dootoo fay loolu dafa yomb loolu seer moom xam nga yëf yi yëf yi yëf yi ciise la koy bëgg a jël te yëf yi dafa nekk loo xam ni bu ñu voté loi bi ba pare fi mu ne nii dina amaat yeneen décret yu génnaat chaque semaine di ngeen gis dana am lu ñu càmbar gis benn réalité yokk ko ci biir Cura Italia euh, bi ñu jëlee xaalis boobu jox ko commune yi séddale commune bu nekk ñu jox la ni la lii kat ñi nekk ci dëkk bi ñoom nga ko war a séddale léegi nag yow yaa xool critères yi mm-hmm. critères yi en général dañuy xool ci secondo seen doole nu mu toll mais daanaka presque ñëpp la ñuy jàppale wàllu affito wàllu affito bi aussi dañuy xool ni ngeen toll ak it euh, seen seen jàppandal waaye lii nga xam ni moo di mutuo bokk ci mutuo soo ko bëggee am na benn module boo xam ni banque yi dañ koy dañ koy dañ koy da nga koy jël nga signé ko état covid mi ngi ci cour italia bi boo ko jëlee remplir ko yóbbu ko sa banque demander soit ñu ñu aj raate yi pour quelque mois wala ñu yokkaatal la sax maanaam xeetu xeetu xeetu euh, raate yi euh, gën ko tàllal ba nga xam ni day gëna a loolu moom mooy Cura Italia bi mais bari na Sénégalais yoo xam ne actuellement liggéey ñu toog nañ ñeenti at dañ lay woo ni la dugalal ma ci 600 euros yi fekk ne. 600 mhm. euros yi dañ dul xool mais euh, audio WhatsApp yi ak léeg-léeg mhm. vidéo yi nga xam ni da ngay gis ku ñëw rek nii ku mu neex mën nga ko demander. dëgg la mën nga ko mhm. demander boo demee boo dëggee demande dañ lay jox reçu-voto waaye demander taxul nga am te it nag demande bi dafa war a nekk nga nga nga nga nga topp charte yi nga xam ni moom la ñu teg. pour nga mëna am demande yoy def pap lolu dal tay ji hmm. mom lañu bëggoon dugal ci lu gatt rek di xaar dimanche ak hmm. jam inshallah allah buñu ñëwé bu wax waxtaan bu gëna yaatu ñu waxtaan ci cour italia bi gëna lalat yenen yeneen yi parce que tam euh, hmm. euh, euh, sindakato yi ñi ngi waxtaan waxtaan bu xoot man tay yi daanaka yow demb ma ngi lay wo nga ne ma yaangi yaangi call conference. fi ni ñu xamni ni dañu nara retracer wat maanaam euh, ni euh, euh, euh, ñu koy waxati sunu habitude laborative li des ci 2020 mille bi kon nañ ko wàcc ñu xam ni tey jii donte ñu yóbbu nii du casse casse intégrationnel du ay férié waaye nag biyeboo ñu souple nangu nangu waxtaan ak ditaa bi ba yenn sacrifice yi ñu nang ko def ndax nag am na ditaa yoo xam ni pour ñu mën a survivre il faut ñu def ay sacrifice yu mat lu mel ni ay mm. férié agosto lu melni ni ay liggéey ay moment yoo xam ni waruñu woon liggéey waaye nag ñun sénégalais yi nañu xam ni ren jii ñu sóor suñu ay vacances ba mën a jël sacrifice yoo xam ni lépp lu ñëw bañ ñoo bett sëñ Pape ma joxaat la kàddu gi. waaw jërëjëf sëñ Pape xam nga euh, loolu dëgg la parce que euh, de cour Italia bi euh, gudd na gudd ba nga xamante ni pour ñu faram fàcce ko sax problème la. ndax xam nga boo demee bay wax lu toll ci cent vingt sept article te article bu ci nekk ñàkkul mu ñoŋal sunu benn mbokku taalibe xam nga mënoo koo tëb ndax faaw nga euh, am loo ca laal loo xamante ni moom mi ñuy déglu saa ne dina ci gis boppam dana ci dana xam lan moo lan moo ciy njariñam euh, am na sax ay yeneen article yoo xamante ni xam naa ni dama koy dama koy tënk rek ba dimanche waaw article yooyu dama koy denc rek ba dimanche incha allah bu ko defee ñu ñu ñu ñu ñu laal ci ndax euh, problème association yaa ngi ci problème mu mbalit yi ñu war a fay mi ngi ci ak yeneen ak yeneen euh, mais ñun xam nga chaque fois euh, li ñuy li ñuy gën a pousser sax mooy appel yi ñuy jot ndax yow semaine bi da ngay jot téeméeri appel ak juróom-ñaar ñu naan la ah man nu may def ba am 600 euros yi léegi yow lay nekk sa xel mooy si man day bu dimanche daa waxtaan ci 600 euros yi ndax nag bu ko defee appel yi danañ wàññeeku nit ñi danañ xam ci ban anam la ñuy doxee pour jot 600 euros yi même patronat yi ñu ngi organiser wu de sorte que euh, pour ñu déposer la 600 euros yi yow jarul ngay ñëw ci patronat bi dafa am link buñ ñu lay yónnee rek link boobu boo sketchaare boo bësee rek mu ubbeeku nga dugal sa codice fiscale def euh, do mio consenso jeex na dugal sa codice IBAN wala bu fekkee ñoom yoroon nañu ko ñoom ñu dugalal la ko automatiquement sans pour autant que nga déplacé wu sa kër parce que lii depuis ay at ci ginnaaw lañu fi tàmbali woon doon wax industrie 4.0 mais industrie 4.0 dafay ànd ak technologie 4.0 te jamono boobu lañu toll nii ndax sëñ Pape yaa ngi toog sa kër di liggéey te demoo bureau ba demoo ci fabrique yi te teeroowul yaa ngi waxtaan ak fabrique yi sénégalais yi ñu ngi toog seen kër yor seen téléphone di def ay vidéoconférence ci daayira yi ci ci ci ci euh, euh, ci association yi di ko def aussi di dugal ay yen demandes yi ci IMS wala ñuy dugal yenn demande yi feneen ax feneen donte du lu yëndi recommander parce que système IMS dafa nek système bu bu bu bu fiir système bu doy war la waaye am lu ak lu ci mënti démé rek bo bo bo bo bo boo ak yow gox ba nga nek patronat ya fa nek ñom dinañ la tek ci ay yoon yo xamanteni jox la ay mais nak mais nak pap dina la dog fofu chakal yi ñoo commencé yàq liggéey bi parce que nak man gis na ay nit yo xamni ak ay euh, euh, daanaka mooy ñi nga xam ni dañuy defarloo ay pratique bi fayeku. Mm-hmm. ñooy obligé nit ñi pour ñu dem jëli ay codicépine. waaw waaw ñu ci bari dañuy defaraat yëf yi pratique bi bon ñu dellu si ci ñun. effectivement parce que yow mii am nga ci ay exemple man am naa ci ay exemple waaw ñu dem ñu dem seen pratique seen pratique bloqué ñu dellusiwaat ci ñun te pratique boobu dootu ko mën laal parce que. Euh, IMS mm-hmm. dafa dafa fiir. ku xës ubbi sa instruction keneen mënu ci dugg entre patronat sax mënut a nekk. Ah, a laaj doomu aadama sëñ Pape. déedéet déedéet déedéet mais mais bàyyil ba bàyyil ma ma ma ma ma tënk article yii rek bu ko defee dimanche. gaañ bu ñu ko dégloo bu ci amee ay laaj ñu may leen ñu dugg laaj ay laaj. ak waaw parce que euh, damay bañ ñu kii ko bu dimanche euh, ñu ñu ñu laal ba laal loo xamante ni pour ñu génn ca problème la. Mhm, ndax mhm. xam nga ñun bu ñu nekkee ci émission moom yenn saa su suñu yaram day tàng. dëgg la dëgg la. <laughs> alors euh, décret bi article 63 bi parce que ñàkkul ni yow jot nga ku la yónnee busta paagaam ci démb ak tey. Mhm. Euh, ci 100 euros yi gouvernement bi def te ñu bari jotuñu 100 euro yi. xam nga gouvernement bi dafa ni ñi liggéey ci mois de mars bi. dina leen jox premium cent euros bu fekkente ni sa reddito eggul quarante mille euros euh, ba noppi tegal la ci ne la cent euros yooyu mu lay jox du yokk sax ci sa reddito parce que ñun xam nañ ni reddito moom day euh, day yokk te im basé ak reddito bi ngay am ci lañ lay jox assegno familiare bi nga tollool ak bi nga méngool ak yooyu te mën na la yàqal tamit ci ISE ci ya ngay laaj école ba pour njàngu xale yi wala mensa wala transport beeg yooyu waaw donc cent euro yooyu am na ñu bari ñoo xamante ni jotuñu ko ci seen busta paaga man mii jot naa ci ay busta paaga yu ñu ma yónnee yu bari. Mhm. Euh, am naa aussi euh, indication bi Agenzia delle Entrate def yónnee ko xam naa dina dinaa la ko yónnee ñu publier ko ci Facebook bi mu leer naññ pour que gaañi képp koo xamante ni jotuloo sa cent euro na nga dem ci sa patron ne ko hey cent euros yaa ngi du sa xaalis sama xaalis la gouvernement moo ma ko jox jox ma ko. Mm-hmm. waaw te cent euro yooyu cento euro puliiti la du du du loor di kenn du ci mm-hmm. dagg dara mm-hmm. parce que premium la alors donc euh, dafa war a dem in automatique ko ci biir busta paga bii ngay jot nii beneen bi mooy association yi nga xamante ni ñu ngi ci réew mi mooy article soixante six bi te ñu reconnaître leen légalement que amuñu benn du association yoo xamante ni dañuy ut xaalis mooy seen topp di lucro yi te ñu contribuer ci émergence bi te booy xool sëñ paap dëgg-dëgg ñun association yi fi nekk genn wàll gi yëpp dama naan sax ñëpp sax nag dugal nañu seen loxo ci contribution wu émergence bi bu fekkee dafay am lu ñuy fay ci ay imposté may nañ leen euh, pour détractionner trente pour cent bu fekkente ni dañoo dépensé loo xamante ni rombul trente mille euros lu mel ne euh, ma joxe exemple rek Santa Croce bu fekkente ni dugal na euh, joxe na six mille euros euh, bu demee am lu muy fay ay imposte wala yu demee noonu dinañ ko defal détractionné trente pour cent te loolu c'est important parce que xoolal ñaata association sénégalaise ñoo fi nekk donc loolu lu am solo la te it comme da nga koo def ci émergence Covid 19 bi loolu moo tax. ñun ñuy war di jege ñi nga xamante ni dëgg-dëgg dañu nekk ci administration bi ci liggéey ndax bu fekkente ni dañ koo dajale woon dem rek jox ko euh, directeur protection civile noonu def ko ci enveloppe jox ko ko noonu xam nga amul traçabilité de ba de sorte que li ciy gën mooy nga def ko bonifico à bonifico def ci Covid 19. donc loolu tamit beneen information la article 68 bi. mbalit yi ñuy fay xam nga ñun dañuy fay ay mbalit. Mm-hmm. boletin yi ñëwoon la diggante le 8 mars ba tey jii yokk nañu ko fay bi mën nga ko bañ fay pour le moment yokkal nañ la ko ba le 31 mais am nga temps fay ko. Mm-hmm. te yooyu it nañu koy fay téléphone ci la bokk. téléphone bokku ci bu tax sayer dem léegi média wour di len wax mo tax may leerlu xam nga xam nga dama xam gaay amay xam nga yow da ngay wax ben information ñeneen li bëgg dégg rek lañ fay duggal wa moo tax des fois damay bëgg leral dal non dégg la dégg la dañ ni dañuy dañuy bép cartel la même moy cartel enveloppe yu verte yoy gaay di la indi rek agent riscosion yi yooyu ñi nga xamante ni diggante la le huit mars ba le trente et un mai. Mhm. la ko yónnee am nga temps fii ba ba fin juin pour fay ko. Mhm. donc am nga temps di jël as cinco euro di ko denc à part ba booba nga dem fay ko ndànk balaa yi leneen di la ci fekk. Mhm. Euh, procès yi moom waxoon nañ ko fii que ni nañu ko. suspendre nañ ko waaw. lool sax mo mo tax ni ñu japp ni décret bi gouvernement bi dina ko yokkat parce que mm-hmm. comme ba le 15 avril la ko mm-hmm. euh da ko suspendre mm-hmm. euh te it onjeedo yi dafa euh, ñi nga xamanteni jëlugu ñu ba légui ni war nañu mëna jëlat parce que école bi ubégul deug la waaw te école te école bi do ubi yaakaaruñu ñuko waaw parce que ministre bi ci wax joju la wax néna décret bi ñu nara def moy décret scolaire waaw waaw parce que ragal naa ni même sax ko war nañ ci insister sëñ Pape foofu waxtaan ci pour dinañ ci waxtaan dinañ ci waxtaan parce que c'est très important scola bi hmm. euh, euh, na ci man lima ma gën a kii dinañ dinañ ci waxtaan allah dinañ ci waxtaan ah, war nañ ci waxtaan quoi dëgg dëgg euh, beneen bi mooy bi ci mujjee mooy article bi la wax ni document bu jamono muy passeport muy carte d'identité muy desera sanitaria yokku nañ ko fi ba le 31 août kon mm-hmm. nak ngal la mbokk talibé yi nan tok ci kër yi nan tok ci kër yi mm-hmm. amul ben activité wala ben eh, document administratif bo xamanteni yakamti na ci ñun ba wara tax ñuy genn di mm-hmm. jël risque suñu suñu suñu suñu bakkan di risque yi di jël fièvre bi di ko dugal ci suñu biir kër yi wala ilaa ñuy risqué yi di jël ay multa wala ay verbal yoo xamante ni dafay dem bay laal suñu casier judiciaire hmm. waaw suñ pap loolu daal laa laa laa laa ci bëggoon a yokku xam naa ma ba ma ma dellawaat la kàddu gi waaw mel na ni daanaka moom euh, euh, def nañu diaspora rek moom xam nga comme li ñuy wax rek on avait besoin de de faire le point urgemment euh, amoon ay points yu néew yu ñu bëggoon waxtaan te yu am solo jëm ci fayub Euh, euh, euh, maanaam li nga xam ni mooy payooru kat yi jëm ci wër wi yan condition ak yan anam bo gisé sa busto mo am lula jaxal naka nga wara a comporté woo yooyu la bëgg wax loolu day lañ doon waxtaan ndax hmm. semaine bi xam nga déjà am nañu commencé fayeku le 10 bu commencé rek tay ji aljuma bu ñu anticiper ay nit hmm. ñu commencé xol yaakar ni tuba bi daf leen nax ak yoyu ak hmm. ñi nga xamni jotaguñu communication pour ñu xam ci yan tànk la ñu toll. Euh, mmh. beneen bi ñu tëjee rek moo di euh, euh, ñi ngi sant sunu gouvernement bi ndax wax dëgg fa yàlla defe naa ni loolu moom danañ ci waxtaan dimanche xaju fi tey dañ koy laal rek. dégg nga xew-xew bi douze milliards yi ñu may. Mmh. douze milliards nag moom bari na lool waaye fañ ko teg moo yéeme. Mmh. keroog ñu ngi doon waxtaan ci wàllu ñi faatu. ñu leen di rapatrier mu dem ba indi woon coow loo xam ni. Euh, xawoon naa indi jaxle lool ba ministre bi génnee wax ni euh, dootuñu rapatrier benn benn benn benn benn benn benn décès euh, léegi nag ministre des affaires étrangères ñëwaat na wax benn wax ni jëndal nañu ay pàkk fii pour ñu suul ñu <laughs> loolu gën a doy waaye li ci gën a yéeme mooy dafa am ay ay changement yu ci am waaw hmm. ndax nag ministère de la santé ak ak ak ay ay ay ay ay kuréel yu mag Euh, wax nañu ne loolu moom c'est c'est c'est à vérifier donc il faut que ñu ñu ñu ñu ñu toog ci waxtaan euh, ni euh, dégg nañu ne actuellement c'est vérifié que ni am na noo xam ni bu ñu defaree cercueil bi yóbbu ko amul benn risque loolu nag yaakaar naa ni bu fekkee loolu am na jar na toog waxtaan ngir créer une forme de dignité boo xam ni ndax famille ñëpp a ñëpp a jaaxle fi mu ne nii te sëñ su ma la nee Euh, euh, euh, ci ci waxtu wii ñuy wax ak yow ñu ngi ci cinquante morts ci diaspora bi. Mm-hmm. cinquante morts bari na. yow gis nga Italie ñun li ñuy dund. France fi mu ne ñoom ñëpp seen néew yi ñu ngi bloqué États-Unis déjà commencé nañu ñun Italie sax defe naa ni supérare nañu loolu. ñu ngi sant bu baax suñu kilifa yi fi nekk ndax ñoom oustaz Saer Bergamo defe naa denc nañ fa ñeent. donc mm-hmm. ak amatuñu sax problème boobu donte. Euh, bu fekkee am na war nañ ci waxtaan ndax nag euh, euh, am na loo xam ni sa gouvernement bu la ko defee dafa mel ni daal ñun dañoo yore benn góom boo xam ni gouvernement beeg sénégalais dañu yor paak di ci bës rek muy muy muy muy muy gën a metti ma bëggoon rek nga jàngat ci ñu tàggoo ba dimanche ak jàmm incha allah. waaw sëñ Pape xam nga man jàngat bu gàtt rek laa ciy def ndax damaa gëm ni rek. ñun dañoo war a waxtaan ñun loolu moom moo ñu war maanaam dafa am benn benn benn pàcc boo xamante ni euh, dafa manqué ci yëf mooy ne que ñun euh, sunu sunu sunu autorité yi nekk fii fii ci diaspora bi yëf yi ne këtt ni jonn la leen waroon mooy ñu créer benn comité de crise boole ci kilifa diine yi fi nekk ak ñi nga xamante ni ñoo ngi liggéey ci institution yi bu ko defee ñay liggéey ci institution yi xool naka lañu ñu mën a demander yenn autorisation yi ak ye am yenn information yi techniquement ci naka lañu ñu mën a yóbboo koor sans pour autant que mu am benn incident ci fa ñu koy yóbbu ñi wàll féete wàllu diine ñoom danañu mën a defal population bi te danañu mëna bok ci waxtaan wi pour que nit ñi mëna am référence ci table de crise boobu mm-hmm. ndax buñu faté ni dafa am benn recommandation boo xamante ni OMS daf ko def mm-hmm. pour dëkk yëpp dëkk yi nekk ci àdduna bi yëpp en cas de pandémie uh-huh. alors Italie mi ngi koy adopté mm-hmm. an an ci an ci an bind na note boo xam ni daanaka tas na ci dëkk yëpp depuis. Euh, le 29 mars defe voilà Italie mi ngi koy adopté. Euh, parfois mën nañoo bañ a raisonner d'une manière émo euh, émotionnelle. parce que ñun dañuy wax ci li nga xamante ni loolu la ñu baaxoo. waaye bu ñu waxee cib diine sunu àll wa soriwut. waaye bu ñu waxee cib diine rek. amuñu benn obligation bu ñuy permettre pour que ñu ne suñu corps bii dañ koy yóbbu Sénégal wala dañ koy yóbbu Euh, bàq ya. Mhm. amuñu teguñu ko ci diine. waaw mais nag Pape da ngay da ngay mhm. mhm. dangay xam ni ñun Sénégal tey jii. loolu xëy na ñun sénégalais yi bokk nañ ci ñi am loolu. bu ñu amoon ay milliards. Euh, milliards milliards. que dëkk Tivaouane. que dëkk Yoff. que dëkk Touba Niassène. fu mu ci àdduna bi bu sa bu dañ koy yóbbu xëy na nag yeneen yeneen. bari na yeneen yeneen uh, kuréel yi yeneen dëkk yi ñoom amuñu mais ñun loolu dafa nekk culture ci ñun maanaam uh, uh, dem dellu si sa si sa dëkk ñu denc la fa. waaw mooy mooy mooy loolu métti na mooy loolu ma wax rek ñun dañuy wax ci émotion. Mm-hmm. ñun dañuy wax ci émotion moo tax ma ni bu fekkente ni dañoo woo ou bien ci loi wala ci diine ñun ñooy daanu kon li nu war mooy ñu waxtaan naxante ak suñu mm-hmm. gouvernement. Mm-hmm. créer comité de crise boobu boole ci kilifa diine yi fi nekk. Mhm. mën a am information technique ci ci côté ci wàllu euh, wér gi yaram ñi koy yore ñi ko ñi ko ñi mu màcc. ñu mhm. xool keesu hermétique boobu. naka lañ koy yóbboo Sénégal ndax gis nañ ni Sénégal am na ñaar ñu fa faatu ñoo xamante ni foofu lan leen denc kon ñii war nañ leen mën a denc Sénégal la ca des nag mooy. naka la nu gouvernement di accompagner naka la ñuy waxtane ak ñom mais bu fekkente ni dañu ko jël di feut feut di yuuxu di dal tëb di dal gouvernement bu joggé xolu la yow parce que yow ben numéro nga ci mom parce que gouverner c'est prévenir -hmm. seigne pap jamono yi guerre do doomu mam mm-hmm. Cheikh ibrahim Fall France gi lañ ko denc euh, ak ak ak ak ak ak ay ay ay ay doomu dignitaire Sénégal waaw euh, yu yu doomu seigne Modou Moustapha Fall sëñ Moustapha sëñ Modou Moustapha Mbacké astafurlah waaw kon man dama gëm ni ñun ñëpp li nu bëgg suñu gëm-gëm ak suñu bëgg-bëgg mooy néew buñ fi am nañ ko yóbbu Sénégal waaye nan ko def ak anam bu dal mhm. bañ a xëccoo ak nguur gi mhm. waaw bañ yëkkati sax suñu baat ba nguur di xam ni ñoo ngiy xëccook moom man gis-gis boobu laa ci am dëgg la dëgg la dëgg la ñu waxtaan ndax nag dañoo nekk ci situation euh, émergence il, il, il faut une gestion extraordinaire. Mm-hmm, mm-hmm. il faut que nous ñu tënku ci loi yi ndax tubaab yi nii ñu ñu tënkee nii ci biir kër yi <laughs> da koy respecter par force parce que xam nga la la cay dal la la cay fekk. alors kon nag kon nag nanu man dama gëm man limay wax sama sama mbokk yi nañu nañu ndax kenn xamul kañ la dé mom kenn xamul kañ la. Mm-hmm. kenn xamul kañ la kon nak nanu waxtaan. xool ak gouvernement bi bind bokk ci commité de crise boobu lu nu war a teel a def la te loolu suñu autorités yi dañu cee waroon a teel a jàppale mhm, mhm. ndax xam naa ni sóoruñu woon ni nombre de morts yi danañu toll nii fii ñu mhm. toll nii mais bu ñu ko sooroon doon nañ teel a jóg ci commité de crise boobu ñu doog teel waxtaan pour mën a jël disposition yi tënku ci ni ah Italie day wala diaspora bi de lii la ñu bëgg demandé wuñu nak Italie demandé wuñu gouvernement bi nga jox ñu xaaliss waye li ñu bëgg moy gouvernement bi ñun bu nu amee néew danañ fexé ba dajalé ñett wala ñent mhm. jël cargo duggal leen ci parce que tubab bi 72 heures la ñu may pour ñu jël suñu néew mhm, mhm. ñu mëna koy convolgere l' autorité italienne pour départ yi fi comité de crise bobu liggéey ci lolu deug la deug la waaw kon man damay ñaan rek gañé nañu and ak dal ndax feut feut mom boo def ak nguur ci yow rek ci yow rek lay metti rawatina nag ci jamono bii ñu nekk. jërëjëf kon sa kàddu gu mujj sëñ Pape. waaw di la gërëm rek di la gërëm di la sant ah, xam naa ni Modou Mbaye Thiam moom sonal nañ ko lool waaye ñu ngi jéggul bu baax a baax. Mm-hmm. Eh, di di di siyaar mbokk taalibe yëpp. Eh, mm-hmm. di di ñaan yàlla it eh, nuyo yeeg siyaar yeeg yëpp fekk ñëpp ci jàmm di ñaanal ñëpp jàmm. Mm-hmm. lii ñu fi dégg nii ci réew mi. dañuy ñaan yàlla suñu borom rek mu saafara ko saafara bu gaaw. te dégg rek dégg rek doy ñu ci. dëgg dëgg euh, waaw ñi ci faatu nag moom ñu ngi leen di ñaanal yàlla ñu xippee aljana firdawsi di ñaan di ñaan yàlla suñu borom euh, mu boole na nag Serigne Touba mu teeru leen ci aljana firdawsi euh, di jox mbokk taalibe yi dox daje rek dimanche incha allah dinañ dellu siwaat ci kàttanu yàlla ñëw waxtaanaat indiwaat yeneen yeneen i waxtaan rek ci kàttanu yàlla jërëjëf sëñ Pape. jërëjëf jërëjëf sëñ Pape Makhtar ñu ngi lay sant bu baax ci disponibilité bi waaye nag di sant sunu jëwriñ Modou Mbaye Thiam Baye Fall moom mi nga xam ni moo nekk ci ginnaaw kenn gisu ko waaye euh, daanaka moo yor lépp mooy tax wax dëgg fa àlla tey jii euh, mën naa ni Italie yëpp ñu ngi ñuy déglu ndax gis nañu wax dëgg fa àlla auditeurs yi ñuy suivre euh, ak ak ak sax surtout interactivité messagerie bi ni mu ni mu ni mu amee solo. soxna Seli Kane Jibril Ndiir Aliou Silla Serigne Ba Cheikh Bey euh, Serigne Fam daanaka su may tudd sax damay juum euh, bala may sa càmm mbokk yi nga xam ni daanaka bu émission bi tàmbale rek da gis ni ñuy euh, intéressé woo sëñ Mbacke Ndiaye ci ci ak it maanaam feedback bi ñuy am ci rafetlu kàddu yi ndax tey jii technicisme bi Pape indi. Euh, euh, ñëpp dañ ko apprécier damay gis ay ay Alioune Gueye ay ay ay ay yu technique yoo xam ni neex na ma lool ndax nag nekkuñu ñu fi pour di sàgg ragante ay mbagg dañ fi nekk pour jéem a lijjanti ay ay ak ak yee laayante biir ci loo xam ni mbokk yi xamuñu ko euh, ni ko waxee rek nañu sant yàlla te xam ni ñun communauté sénégalaise am nañ lu ñu ñu communauté yu bari di di ñee ndax tey jii lii ñu am ci rajo bi toog ñaari syndicat toog syndicat yu am doole nekk fii euh, ku nekk indi la nga am ñu toog jox ko communauté bi mu nekk une grande opportunité fierté la ci ñun waaye it fierté la ci li nga xam ni moo ñu boole mu di rajo Sëñ Bamba bi foofu nag laay tëjee di di ñaanal waa Sénégal ndax ñun daanaka euh, sunu sunu sunu sunu sunu sunu sunu njaxare ñëpp xam nañ ko dañuy daanaka léegi dañoo dañoo xaw a sax dërkiis waaye jamono yi sunum réew Euh, euh, njàqare gi mi ngi fay commencé dugg ndax nag gis nañu bés bu nekk bu ministre de de de la santé génne euh, commentaires yi muy joxe dafay doon ay commentaires yu tiit tiitlu ndax cas yi day gën a yokk di gën a yokk te dara warul ko lu dul manque de discipline bi manque de respect bi nga xam ni nit ñi bañ nañ ko jox état bi ndax état nag mooy jiite bu joxe ay directives dañoo war a topp ci directive yooyu ndax man dama gëm ni nit bu amul kilifa. Euh, euh, fa muy jëm du sori tey jii Sénégal war nañoo am njàngat ci li nga xam ni moo fa xew Touba la yii fi njëkk a duggee ba mu duggee Touba ñëpp di yuuxu sëñ bi jóg euh, jóg am taxawaay bu mu taxaw waxtaan ak taalibe yi jox leen ay directive taalibe yi tënku ci ndigal loolu gis ngeen tuuba mbir maa ngi fay wàññeeku alhamdulilah ñi ngi ñaan yàlla bu mu fa dalati waaye dañuy ñaan mu law Sénégal ndax it Sénégal moom dara xaju ci ñun euh, dekk bu neew doole euh, waru ñoo xalaat xet yu febrar yu melni difa di dugg ndax nak bu fa duggé ah musiba lay indi te gis ngeen amna niveau bo xamni bu fa tolloo yoruñu jumtukaay yoo xam ni euh, mënees jëflante ak mom kon nak mbokk yi nañ leen delluwaat respecté li nga xamni mom lañu yoon santane ñi am njabot di wax njabot gi ñi tok ci kër gi bañ di génn guddi bravaate yi di wone ni ma ñëmé wala may def def nangam am na loo xam ni bu xewee moytu mooy gën ndax nag rëcc ah amul amul prix tey jii nit lu mu doon jàmbaar bu tëddee feebar doo dootoo ko xamee ci moom kon nag war nañu góorgóorlu bu baax euh, sàmm sunu réew mi xam ni sunum réew mi euh, lépp lu ñu am euh, Sénégal moo ñu ko gënal war nañu góorgóorlu ba sàmm ko sàmm Sénégal nag mooy fexe ba lépp lu koy muccal nga def ci kon mbokk yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci seen taxawaay ci kaddu yi ngeen ñu joxoon waaye di ziare suñu mbokk yi nga xam ne ñoo nekk ci rajo bi sëñ Ablaye Diop daaru xasanaat xam naa ni moom waxtu yi lay faral di dugg tey dafa mel ni dañoo xaw a buuxanteeg moom di leen di leen jox da dox daje nag dimanche bu jot a vingt et ci diaspora foofu daanaka moom mooy sunu place mooy sunu waxtu fa la ñuy waxtaanee ci li nga xam ni moo jëm ci immigration sunu nekk fii ak lépp loo xam ni mooy ay dogal yu fii kon mbokk yi ñu ngi leen di sant leen gërëm lu ciy dëng rek ngeen xam ni Eh, eh, eh, mbokki taalibe la mm, kàddug doomu aadama moom matul waaye nag lu ci baax ngeen xam ni sunu borom moo ko mooy dimbali rek kon nag ñu ngi leen di sant di leen gërëm di sant bu baax Pape Makhtar ak Modou Mbaye ci seen disponibilité asalaamualeykum wa rahmatullah wa barakatuhu jërë